الله سبحانه وتعالى أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله من الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم لم يكن مع الله إلا ما لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ndax yéen doomu aadama yi da ngeen def dama leen bind ci po wala dama leen bind ngir po ngeen jàpp ne kon du mu demee si ci man mu maqaam bu mu bu tiit la bu rafet ndax tëdd la bu suñu borom azza wa jalla ak màggal kàttan ak sañ-sañam ak mën-mënam ak moomam nit

ni mu war a feese xolam ci gëm ko ak bëgg ko ak yëg ko ak tax bu ne fa taala allahu malikul xaq laa ilaha illa wa rabbul arshil karim ci matam nga xam ne tàmbaliwul fenn tabeyemi fenn toog ci ngayu ne moom tiim yi waral bi di ci jëfandikoo di ko soob wane li nga xam ne mooy ni ko ci la war a jaar te sa benn jéego war koo moy bu nit ki xamee mu toll ak ni yàlla toll ak li mu ko sant dénkaan ni mu ko dénk muy juróom-ñaari cër yi te di ko ko laaj ëllëg ci yoon bi bu ëllëgee di ko réccu waxtu woo xam ne sàggane na ci dara sànkan boppam mu settantal di di njëkk a war doon anam xamena am na borom ñu xamal ko li mu war a xas ci borom yi war nga xam ne mënu la ñàkk ak yi nga xam ne dafa aju ci bu ko neexee mu jëfe ko bu ko neexee mu bañ ko jëfe muy suñu borom ak yi nga xam ne yërul ci moom la yërul ci moom mu sonal ko borom ci xolam la yàlla ci moom mu def ko ni mu mën a am mën a ñàkk xam ne def nga am ñàkk gaa def garab dikkalu bañ a li nga xam ne mënu la ñàkk melaw la woo xam ne suñu borom melo wala mu fase ko noonu bu ko defee jëf nag soog a jot ndax fi xamul na muy jëfee rek ni ko sant mu jëfee noonu rek mu ne ko jëf te bu jëfee jëf jëf aw yoon te kon bu ci am mu jëf dong mu l-insaani ilaa maa sa'a wa anna sa'yahu sawfa ci bàmmeelam dañ koy tàmm jëfam bu jëfam jeexee mu toog di négee te foofu la gën a aajowoo ñu ñu aajowoo lekk naan ci adduna foofu la gën a aajowoo tuyaaba te jëfam am fu mu yem am lu mu toll ñu di ko ko fay te yàggaayam foofa xamuñu fu mu jëm ndax ña deewoon boobaag léegi ëpp ay téeméeri junni ba léegi ñu nga fa te ca jëfe woon rek la ñuy ku fa amatul dara yaa nga rek nit ki nag war a tànn kon gannaaw bu mu taxawee ci farata yi ko yàlla sant ba noppi lu mu gën a mën a rafetal jëfam gën caa ëppee ndax mu bañ jëf jëf ju jëf ju manqué ndax jëf balaa mag day rafet kon nit ku nekk bi nga xam ne ne àddina dafa kifaaya dafa bari ñii dañoo jëm si ñii jëm si ñii jëm si ñii yàlla mën loo leen ñii yàlla mën loo leen ñii ñii yàlla mën loo ku nekk war a tànn rafetal nga taxaw ngir ko rafetal nga tax bu ko réccu ndax kullu ma li ahli ilmi ada nit ku nekk ni sa daraje toll na sa rafetal rek ki ay rafet rafet ñaari yoon moo la ñaari yoon ci itte doomu aadama ci gën a mel kon boo déggee naan yàlla noppi na yàlla noppiwul li fi nekk moo di xam na fa ngay jaare fépp ba bi nga fi jógee teew na fi moom ba mel ne lu am ba noppi waaye amagul sàkkal na la ci cër ci kaw sa itte ak sa farlu ak sa xel ak sa kàttan ak sa fit loolu lépp bàyyi nga ci xel mooy sas wuñ la ci topp nga xam ne mu ngi aju rek ci say melo la nga mën ak la nga tële la nga tay ak la nga sawar mu xamal nit ne mu jëf ci lu baax boppam la ko jëfal lay safaan bay moom mu xamal ko ne ko bu ñu la bindee defuñu la nga sotti yaa war a sotti sa bopp ndax yaa war a seet ba xam la lay baaxal nga nekk ci ak sa itte yëpp ak sa mën-mën yëpp ba mel na nga xam ne boo ko melee ëllëg yi boo ñëwee daje li nga bëgg sa soow nag fi bañu moo di danga fi ñu rek mel ni bàyyi nii boo xiifee boo maree naan loo xalaatee dana la jëriñ ci àdduna nga taxaw ca te jéemuloo fóot tilim tilim yooyu jéemuloo bañ sa soow bu ëllëgee mu jub yàqu yàqu boo xam ne defar ko dana wéy defar ko dana fàtt ndax cheikh ahmad bamba nee na inna allaha tabaraka wa taala yarsuqu al ibada bi qadri himmatihim suñu borom day wërsëgal jaam ñi maanaam dana leen baaxal ci kenn seen itte rek ni ma waxoon sànq ne ki la ëpp rafet rafet ñaari yoon moo la gën ñaari yoon ki la ëpp itam jikko yu rafet fukki yoon moo la gën fukki yoon bu fekkee ne yaa ko gën a jaamu gën koo jàpp sa njaamu gën koo wattandiku sa morom jaamu yaa ko gën ci wet boobu bu la gënee tabe moo la gën ci wet boobu nga gën ko ci wet gi kon mu gën la ci wet gi bu ñu seetee nag lan ko gën ci wet gi bu ëppee lam la gën ci wet gi nga gën ko bu keroogee muy jëf muy jikko dana yebal nga borom ndax nit koy ci jëf yi ak jikko yi di ko alaw jikko ak ko mu di lore yi jikko mel ne jaani ñandoor yi jikko mel ne gaynde yi jikko mel ne safara naka noonu jëf yi noonu la mel bi nit di koo xam ne yàlla defal na ko xel sàkkal koy xol mu am bànneex am ay bëgg-bëgg am xel mu koy wàññi am xol koo xam ne mooy ndabal leeru yàlla te ñu xamal ko ne lépp a ngi aju ci sa coobare gannaaw yàlla ba kii jéem mooy gën ba saawu kii jéem a góorgóorlu kee toog di ko xool ba faw moo koy tane ndax gannaaw fu borom bi wërsëgal jaam ñi di jagal jaam ñi ci kenn seen itte ki ëpp itte moo gën te ki ëpp itte mooy ki ëpp fit ki ëpp fit mooy ki gën a takku kon itte ak yéene ci la yëpp doomu adama aju yitte ak yéene nit bu gàttalee yitteem gàtt bu gëddalee bu guddalee gudd ndax dañu ne al maru bi himmatihi yaqiin doomu aadama ci jikkoom lay naawe ba ak asamaan ci lay naawe ba ak asamaan mooy la mu seet muy lu rëy di lu baax di lu jafe mu ñu lii de bu soobee yàlla dinaa ko am gar ca bakkanam jub ba jub jotee ñàkk ca def la mën lépp yàlla nag ko jox ka nga xam ne amul jooju itte amul boobu xol dafa toog yemale boppam ci nii ñuy dunde rek nit kese rek mu yemale fa boppam foofa la yem ba faw ndax suñu borom tabaraka wa taala yonente bi dafa wax ne alayhi salaatu wasalaam inna allah tabaraka wa taala inda zanni abdihi bihi foo jortoo suñu borom rek foofa ba ñu waxtu muy génn adduna bëgg nañu mu mënoon a jëfe mu rafetam ci yàlla ndax bu bakkanam rotee dañeeg njortam rafet loolu suñu borom am na kersa ci di ko mbugal te mu rafetal njort rafetal njortam ci moom ba noppi naka noonu nit ki ci àdduna dafa war a seet la ko gënal lu mu jafe-jafe bu mu ne nii kat ma ko mën na soobu yoon ba rek tey def li mu mën lépp yàlla ci misaal yi daañu wax am na ku wax Kaafuur al Ixshid ci Misra doonoon nit ku ñuul te yëlif nit dafa nekkoon jaam bu doon jaay ànd ak moroomam bi ñu demee ba ci yoonu misra gi ñu jëloon di leen fa jaay ki leen moomoon di leen jaay yi jiital leen bi ñu demee baraw ko ngir aaj bi faj ñuy waxtaan xiif gi ñu xiif metti kenn ki ne moom day li muy ñaan yàlla di ko demee nañu ko jaay toggkatu passion ndax du xiif muy lekk sa ñam ya keneen ki ne ko man de li muy mébét moom mooy nekk buur rek yilif réew mu ma nekk mu ne ko ewaay yow daal yaa gàtt xel dafa nga ne yow jaam bu ñu kut ku ñu di ko jaay mën na nekk buur mu ne pa ah, yàlla dara tawu ko waaye man de loolu def naa ci sama xel te ngi koy ñaan bi ñu àgg Misra rek ñu daal di jaay di jaay waa ji mébatoon ñu jaay ko restaurateur bi ñu jaay ko toggkatu ñam buy jaay ñam ja lam bëggoon mu dal koy am maanaam fa mu tegoon jortam ci yàlla rek suñu borom toll ko foofa ki ci des ñu jaay ko buur bi bi ko jaayee buur Misra yàlla def muy am xel lool mën a lijjanti mbiri àdduna lool te sawar buur bi itte ju mu ko wàccil rek mu defee ko ni mu ko gënale ba mu am ci moom ak wóolu ba mbiri nguur yi ci gën a bari mu wékk ko ko mu di ko doxal bu mu demee ba buur ba faatu te nguur li koy doxale mooy nit ku bu gaañoo doomam rek moo fay taxaw doomam nag di xale su ndaw ñu ne nañ ko def rek muy buur bi waaye gannaaw biir nguur gépp waa ji moo ko daan toppatoo muy kaafoor moom nañ ko ci ni meloon muy doxal nguur bi rek ko doxalal xale bu màggee jël mu ah itam daal ga ko doxal na mu ko daan doxale ba xale bi màgg mu bañ ko koo jox daal di ñuy far nekk buur benn bis muy doxantu ci misra ci Qaahira di dox ba tolloog restaurant ba nga xam ne fa lañ jaayoon moroomam bu mu àndaloon mu di ko seet bañ nuyoo moom ba noppi teral ko bi muy wañu ko bañam dal na ñi mu àndaloon ci ngeen waa jii de hada qaadat bihi himmatuhu fa taarat bi himmati ana ila anaani samaai ki ngeen gis day ittee ma ko jekki foofu la itteem toll man nag sama itte naaw ak man ba àgg ci goxi asamaan yi ma mel nii ma mel moo tax ñu ne maam cheikh nee na nit lépp lu mu jombale boppam ne nangam du ma ko am yàlla du ko ko jox mukk kon nit li gën ci moom na rëy bët na rëy xol ndax li gën ci lu ñuy sàkk mooy yàlla suñu borom tabaraka wa taala ku ko am ñàkkatoo dara tëyatoo dara kon moom doo nga jare sonne li nga ciy sonne da ngay seet yoon wi ba xam ko téelu dem jaar ci ndax alax dëllu mutafaddu ba faw suñu borom tabaraka wa taala ni mu bindee jaam yi damaa waxoon ne bind na leen bañ àgg te dara sotti mu seet dara li ci des lépp mu wàkkil ko ci seen itte ak seen i kàttan ak seen xel moo tax waykat bi ne bi qablil kaddi bi maani fa man talaba al ula sahara layaali tarumul majda summa tanaamu laylan faqad atmata nafsaka fil maxaalim ci kem sa coono ci kem sa farlu ci ngay fàggoo yëkkati ko ba tiim nga foog guddi yi guddi yu bari nekk ca la ngay sàkku di ko sàkku mu ne yow da nga ne yaa ngi tedd ngay àdduna wëlbati ba àllaaxira di nelaw guddi gi ba mu jeex yow day yaakaar loo nga sa bopp lu jom loo xam ne mënu la am te lu amoo ko kon takku mooy bunt am كبير رضي الله تعالى عنه العزم والحزم مؤدي السرور أما التذبذب فيجلب الشرور دوك ak takk day jëmale nit ci mbég mënul dañ waaye déng-déngi day xëcc ay ay ak i musiba ci waa ji ko bindoo wala mu meloo ko di ko def li ñuy wax nag tubaab yi wax ne il n'est jamais trop tard maanaam booy mukk yéex naa jóg ak foo mën a toll boo demoon ba am juróom-ñett fukki at boo demoon bañ ne la gannaaw ëllëg nga fiy jógee jëf wéeru ci yow sàkku xam-xam wéeru ci yow ndax mën naa am suñu borom mi ngay ajoon sa texe ci li ngay def ci sa mujjug dund moo tax lu baax du wéy mukk doone yéex naa koo def féeg noo gi la yàlla dundal li ngay dugg ci sa bakkan di génn ka dem rek nu la neex mën nga ko mel àjjanaa ngi ci sa kanam la ca des nga ci sa kanam daanaka mi ngi aju ci sa coobare fépp sa roogaan sa moogaan nga jëmante dikk rek dara réegul lépp loo xam ne lii sàkk nga ca te dogu ko bu ca sa kàttan andi yàlla mën na la koo jox nga nekk rek dal di tëb tàmbali jëf ji te sax ca doonte bis bu ne tuuti nga ma ne bu yàggee bari te mu baree jëriñ ñi nga xam ne kuy gas teen li ngay tibb ci peel bi li mu néew néew boo tëyee bàyyi da ngay ba àgg ca ndox ma naka noonu la lépp demee lu mu doon rek jaar ci yoon bi te sax ca boo yàggee nga àgg moo tax ne sëñ yi nee na maam Seex balaa dara jëriñ bari te balaa dara bari yàgg kon takku ak dogu mooy gànnaay boo xam ne moom la suñu borom yóbbale doomu aadama gannaaw xel kaw suuf ay waxtu anfasu min az-zahabi jamono neenal ko mooy perte gi gën a rëy ndax sëñ Tuubaa nee na radiyallahu anhu waxtu genn noo dem dikk mu mel ne tor wurus wala jamaa bi ëpp njëkk ci àdduna li mu néew néew boo ko defee ci tudd yàlla wala jaamu yàlla bu mu doon dana nekk ëllëg njëriñ loo xam ne yàlla mën a xam nam toll ndax mu ngi aju ci sa yéene ak sa sellu xol ak sa xër boo wéeree jamono non boobu li mu gàtt gàtt nga wéeree ko ci meen bañ a def dara toog di waxtaan waxtaan woo xam amul lu ko tax a jóg lu am njëriñ ci diine loo xam ne sere am na ko perte nga perte bi gën a ko nag ci moy wala ci sàggan wala ci fàtte yàlla sa perte kenn xamul fu mu yële ndax jamono. moo ëpp ci li am bu ñu a jaay wala ñu mën koo jënd moo tax ñu ne al waqtu anfasu min az-zahabi imaamu taala anhu ku farlu woon la boroom xam-xam bu mag la xam ne bokkoon na ci ñeenti boroom ngir yi nga xam ne waa lislaam yëpp ahlu sunnati koo ci gis kenn ci ñooñu la topp muy Malik Abu Hanifa Ahmadu Hanbal ak Shaafi moom may wax Shaafi ci boppam wàllu mag la buñ ci jógee kenn ci gaay yàlla yi ci ñu doon xaritam gis nañ ko biñ ko laajee nga def ak suñu borom mu ne suñu borom def maa gërëm ba teg ma si njoowaan rus ñu di ma joor cheikh si moom ba mu amee ci bàmmeelam juróom benn téeméeri at beneen wàllu ñu wax cheikh abdul wahab charani gént na gis ko mu di ko yedd moom ñi muy jaxasoo di ànd ak ñoom di jaam yàlla ñun ngeen ma def xam ngeen ne maa ngi sama bàmmeel bii ñu tay ma fi bu ma jugati du ma jaamoo ci yàlla defatuma wenn yiw ngeen xam xel ne mëntumaa def ba noppi ngeen fàtte ma bañ maa loo xam ne lii dégguma ci jëf ji de rafetlu ma ko ba ko Cheikh Abdoul Wahab Sha'rani waxee kenn ci sëriñam yooyu am na ci ku ko fekke woon beneen wàll yu ne ah déedéet ku mel ne diw de limaamu Cheikh yi di ko yedd xëy na mbiri gént la rek moom ma muy weddi woon waxi Cheikh Abdul Wahab Sha'rani jooju ci ngoon si rek ci guddi gi mu daal di nelaw gént gi Cheikh yi mu ne ko Abdul wax na dëgg man maa ko wax sàggan ngeen lool ci sama xaq te li ma feeñal ci yoonu yàlla ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa mu leeral seen jëf ba ngeen topp ko ba suñ borom bindal leen jëf yu màgg màgg xaq jooju jéemu leen koo seet ba ñaanal ma wala ngeen defal ma dara sàggane bu yàgg ba tey maa ko wax boo demee na ko wax sa xarit ne leen maa ko wax maa leen yedd yedd naa leen yedd naa leen ne kon ki fi jógu ku lott la ku loru la ku bëgg ko fàttali la ku bëgg ko fàttaliku la kon ki fi nekk te jóge gi fi moom xam ne fii mu nekk mën na te xam na sàggan waru ko balay mujj di ku ñu tay la ci bàmmeel mu dootu jëf dootu wax war naa farlu léegi الفصل أخيل وحدة الأسود لما به تغير للحسود borom itte mooy kay àgg ca àgguwaay ba nga xam ne ku fa àgg da ngay xettalee ku fa àgg ku dox ba daje yow ci yoon sax suñu borom jox ko texay bu dul daje ci mukk insha allah doomu aadama ci itteem lay fexe ba wet ba ñu wet ko wala ñu bëgg ko wala ñu teg ko foo xam ne béréb màgg moo tax shaayir bi ne law lam takun ñuy fi qulubi mahabatun lam yaqdafi adaa fi fi yow yem ka lays lamma hiba xutta lahu zuba wa awat bi haybatihi alkilaabu mudba يرمونني شدر العيون بأنني غلست في طلب الحلال وسبه nee bu fekkoon te nit ñi wet nañ ma ba ragal ma kon samay sopp duñ ma war fu ñu toll samay noon di ma jëw maa ngi mel ne gaynde ragal bu ko ragal tax ñu di ko gasal ay géejo ngir mu daanu ca xaj yi di ko ba guddi ngir ragal ñu may xool ak cati ndax jëpp ma ñoom samay noon yi nga xam ne li ma am bëggoon nañ ko te amuñu ko te càggante ak tàyyeel xañ leen ko ñu ñeema ba añaani ma di ma xool ak cati bët li ko waral dama jóg ci njël dama yokk ci njël sàkku ji mbaax ñoom ñu ne ba biir set ñu xëy loolu laa leen rawee te dootuñu ma jekk bu mukk bu nit amee xel am itte amul dogu am xam-xam dugg na ba tey sas bu rëy li wax dugg na mu sànnaa ci kanamam dafa bare ay noonu yoo xam ne moom lu mu jàgg daaneel beneen bu ko ëpp doole gën koo soxal ëpp koy pexe jóg tax loolu lépp mu ne ni doomu dafa mel dafa fàtte li taxoon ñu indi ko fi ci kaw suuf te day yàlla séddale nit ñi ci jëfe فأما من طغى وآخر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى كي جيت الأدنى قناوة الأخرى دكواي الألم ويفي نسيب كي رجل تخوايب الألم تكنا ميال ديكو فاتنه dox diggam digg bakk diggante bakkanam ak bànneexam àjjana rek kay këram ëllëg kon yoon gudd bari dag bari dëkk bari dëng dëng bari ay ndom lëndëm te sori lool moo nekk si kanam nit mu war koo dox ngir dañ ca ci waaye li gën tënk doomu aadama mu di li ñuy al maddatu maddatu madda mooy dañ ko xam lépp lu am jëmm ne ci kaw suuf doomu aadama mën koo njëriñoo wala mu mën koo lor mu mën caa jëfandiku wala mu mën ko faa bàyyi dañ ko tuddi al madda alal ngi ci kër ngi ci doom jaa ngi ci tool yaa ngi ci lépp lu nit ki gis di ko jëriñoo njëriñal adduna lu teew dugg na ci biir màtt nit nag lu mu ko gën a jege te njëriñam mu gën a jege xam ne su yëkkatee loxoom rek teg ko ci tax mu wëlbati yitteem yépp teg ko ci màdd boppale di ko sàkku fu mu toll lu mu ci ñàkk mu naqari ko di toog di ko xalaat di sotti ay mbàttam di nattante itam ngir nam ko amee di ñee ko ko ëppale lu ko ci raw mu di ko rëccu loolu dafa tax digganteem ak borom fees xolam ba yàlla xajatu ca leneen xajatu ca gannaaw loolu ponkut ñëw nekk lu neex ci xolu doomu aadama seytaane di ko xëcc jëme ci mu di ci paase jamono bu jëpp القرآن من إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كما كان غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فترة مصفرا ثم يكون خطأ وفلا تسعى من شرك من أدنك أدنى جي بلا فور محمد جمع جميع فوائلة ولا من يدبو ولا من يخوال أكتار أكتو كرنتي أكتو كرنتي lool koo xam ne dafa taw ba mu sëq naat ba mel ni mu gën a neexi borom kama feli xaysin ajaba kuffaara nabaatuhu waaye su ma yéexee ji fataraaw musfarran jékki-jékki rek daal kon nga gis ko mu daal di jaune melawoo melawoo ba noppi kon noonu la adduna di waree ci am toolam di ko seet démb bërki démb xolam dëgg ba mu defe ne jox nañ ko lu ne xëy si fekk mu kon ba mu wóor ko ne benn ni jëriñu ci gëmme mu ne noonu lay adduna gaale noonu lay naxee nit ki muy mel ne ker nit ki day nekk ci adduna di xewlu di noppalu di topp baa ngay xam tawat ji ñëw gane ko donte saa la ci sax dana fàtte mboolem bu masoon bànneexu ci adduna xam ne dëgg gi dikk na léegi caaxaan yi jeex mu gis ne loolu mu amoon lépp dajale ko moo tool boobu jékki-jékki wooyam képp ndax mu ko jëriñ dara te daf ko fi wëcc bu alku woon woon te ne ko fi bàyyi moom keneen a koy dawaloon rek kon misaal moom misaal moom rafet doy kéemaan la mu mën a waare dama dama war a fàttaliku li ñu tuddee haajimul lazzaat mooy malaaka mi màbb bànneex yi malaayikam dee Israël xam ne faw mu ñëwal nit bu ñëwee roo rek la sax te moom lay yóbbu faw mu yóbbu ko nit ki maa def mu yóbbu nit ki jeexal bi ci àddina na mu ñëwee bu ñëwee la muy jëf la muy jëf la muy mel ci nit ki bu fa jógee la ciy topp fa mu jëm fañ koy denc bàyyi ko fa fàtte ko nit ñi ndoxi seen soxla bu nekk di xew moom mu ne fa di nigg rek daanaka wut la wax loolu nit dee ngi si kanamam génn ko roo tegu ca yi xew yépp xam ne suñu borom xam ci ay secret ak i mbóot yu génnaane yu mat a ragal ngir bis bu nekk di xëy di gont bu xëyee du ko wóor dana fanaan dana yendu wala déet bu gontee du ko wóor dana fanaan wala déet waaye ci bari xew-xew yi jamono ak muuru doomu aadama ci bànneex ak ci wut àdduna tax dara waareet ko bu ko fàttalikoo nit du def dara ci xolam yàqu-yàqu yi di gën a bari jamono bu ñu toll rek ñu gën a bari ba fii mu nekk mu àgg ci ñu xam ñëpp tiit jaaxle waaru delloo ñu ci suñu borom ñu seetee ñu mën a tuddee xale yi dale ci fanweer ak jëm suuf li ñu naan al xorriya maanaam liberté moom sa bopp di lu nam xew lu boo xam ne ci moom ngay dellu li mu la digal doo ko ñemee wattani doo ko ñemee bàyyi li mu la sant li mu la sant doo ko ñemee bàyyi li mu la digal li mu la tere faaw nga wattani ko amatuñ ko kon maanaam liberté bu mat a mat a mat musiba yëpp di ci soxtu ko yi ñuy waxtaane lu lu néew néew lu ko waral waru waru xel mu matali waru ak xel mu matali ndax daan wax ne kanam tuuti doomu aadama yi yàlla sàkk mu matadi waru yi yàlla sàkk jëlul ko waar ci kaw suuf ba nga xam ne daanaka aaju ubbi ab téere ngir waar wala mu fekki sëriñ bu koy waar ngir mu war a waar te du ci gisat dem ba du ci gisat ci dara yàqu yàqu jamono li ñu wax masih dajjal indi ay mbir yu mag a màgg xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tiit lo na nit ñi ba tay ci buñ ci agge ba ne ku dund da nga ci kemaani yu reñ kemaani yu dara lu dund suuf rek la xam na sala ñu genn ci suuf xelu doom adama genn ko mu naan nak xelu doom adama wëlbati ba melal ko melaw bu gën a yées te du ko yëg du ci yëg dara xew-xew yi ñuy seetaan yëpp li ci gën a woyof tàmbale ci ay télévision muy lu ñu mënoon jëfandikoo ci yar nit ñi yee ragal loo leen yàlla ñu ñëw na ci seen loxo ñu di ko jëfandikoo ci luy fab bi nit xolam lu koy fàtteloo yàlla luy wowal xolam télévision cinéma muy musique muy football yépp jël xol yi boobu ci ñu ca dara te day yàlla nee na wa man yaxshu an dicri rahmani nuqayyad lahu shaytanan fa huwa lahu qarinun wa innahum la yasuddunhum an sabili wa yaxsibuna annahum muhtaduna xata ida jaana qaala yaa layta bayni wa baynaka bucda almashriqayn fa bisa alqarin ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في الأذى مشتركون. سن برم نينا كيب كو خامني ولبتي wan gannaaw fàttaliku yàlla ak waaru ak di ko xalaat fab leneen loo xam ne moom ngay dugal ci sa xel ak sa xol nun yàlla daanu dogal seytaane soo xam ne moom lañ koy lëkkaleel seytaane si day lëkku moom ba fawwu daf koy wëlbati jëme ci ndëng yiir ko njub mu jàpp nag ne mu ngi ci digg rëcc ba keroog yomal xiyaam ba moom mook seytaaneem soosee duñ teew nag ci kanam yàlla mu gis nag musiba bi mu ko dugal gis coono bi mu ko teg ak mbugal bi ak métit ak naqar mu ne aka neexoon ma sore ak yow ni penkook sowwu sore yoon aka neexoon ma féewaloo ak yow ni penk féewale ak sowwu suñu borom diisal xarit ndaw àndaale bu bon ki nga xam ne ànd ak moom ba la wanee ni mu lay jëriñ yaa ngi bëggoon sore woon ak moom féewoon ak moom jëm nit penk féew ak sow muy ndaw àndaale bu bon seytaan yooyu seytaan yu bare bari la seytaan yi way am na bisi seytaan sax mos lay jëm lay jël neex ci moom ba xam ne du ko mën du ko nangoo jënde dara lépp nag di musiba dong dong moo xam ne du gis mu rappel bi muy rappel xolam lu dul ëllëg wala mu ku yàlla yow mu dem ba delloo si xelam seytaane po seytaane fecc seytaane toog si bërëb di waxtaane la neex jëmee ko bu kenn xamul ndax am nga jot mu dul fàtte yàlla rek te nee ñu mooy gi gën a bon ci mooy mooy gi lay fàttaloo yàlla lépp loo xam ne nekk ca di ca biir jamono bu yàgg boo xam ne ëllëg dañ la koy laaje te loola la di tax sa xel du dellu ci yàlla mooy bu màgg mbokk mu bon ci nit bu nit yëgul te di ubbi bëtam jaar ci mbedd mi di xool lu war a xool lu mu a xool dana gis léeg loo xam ne lii dana ko bëgg te dagalul ci moom te du ko mën a muñ ñu ngi gën a rafet mocc ay tomb yu ñuul yu ay gàkk ci xol ba kañ lay set ñu digaloon ko rabbu tarfi qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum sunan dalika azka lahum nit ki bu wattandikoo bëtam la man ci baña xol ni niñ ko tere boole ci di nemmi ko xolam di xisab boppam waxtu wu jëm soye ko defé gàkk yoy du te ba ko sabal bi ca war wala lenn ñu dem ba tollu ci jëmunu ji gën a ci man ci jamono yi jamono yoo xam ne noonu yàlla ñu gëna mag muy yëwati suñu borom saleen ay xel def si ñoom ak cawarte man loo leen pexe ñu ci àdduna bi indi yàqu-yàqu yoo xam ne ñoo ko jublu ngir seeni axraab yoo xam ne ñu ñaaw a ñaaw la ba loolee indi wuuteeg jamono jin toll wuuteem ak jamono wees wute ni bi nu àggee ci mujj jamono lan moo xamal ni mu ngi ci mujj ndax da wax léeg-léeg mujj jamono am ah, ko wax ne noo ngi ci mujj jamono xamul kañ la saa si taxaw xamul kañ la adduna tàmbali woon lu ko ne mujj jamono mujj jamono kay ah tegtal yi leer na ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam alquran yi ma yantiqu anil hawa ma yantiqu anil hawa du wax mukk bànneex wala njort bu mu wax rek yàlla ko wax wala yàlla xamul xolam mu wax ko te nee na mabaasi wa qiyaamu saati hakada waxtu wuñ may yónni ak waxtu wa saa di taxaw nii lañ jege yoo maanaam buñ xiyaasee ba ba bi buñ seetee ba adduna tàmbale ba mën a àgg foofu dana naan kon li des ci adduna lu néew a la lu tax benn bis mu gën waxtu jënt baa ngi bëgg a xonq garab dox diggante mag jant bi leer xonq jant bi waaj sol tasaaroo mu xool jant bi ne fii jant bi toll li ci des ci bis bi moo tolloo li des ci àdduna bu ñu ko seetee ci ak yeneen i xadis yeneen ak yeneen mu xamal ne kon ñoo ngi ci genn jamono lu gis yàq-yàq ñu waxoon yépp ci mujj jamono mu ñëw muy beneen tegtal ci bu yokk si ci tegtal yi woon nañu ay xew-xew yoo xam ne yi alxuraan indi na ko yi hadis yi ñu jëlee ko ci ulama yi xam nañ fi ñu ko jëlee yi xam nañ fi ñu ko jëlee ci coow lu bari ci weddente ak saxal waaye lépp lu si ñëw ci alxuraan wala hadis bu wér bu wér a wér la li ñuy wax yaajooj ak maajooj ko misaale ñu nekk waaye xam ngeen ne yonent yi alayhi salaatu wasalaam ci seen wax misaal lay doon moo xam ne ni mu ko misaale yow ngir mu dugg sa bopp du jëmm jooju koy xoolee mën nga ko xoolee jëmm jooja te doo ko gis te fekk ñëw na ba noppi ndax dañuy wax ak xel di wax ak xol Isa xel la ñuy wax ak Isa xol ñuy waxal yaa ñu jàpp a mel buñ seetee adduna bi jamono ñu toll daanu ne teew na bu ñu ngi fi lan ak lan lañ ne bu ñu ñëwee mën nañu def dañu daan misaal naan ba di li ñuy wax di yokk naan bu ñëwee dañuy lekk nit ñi lekk garab yi naan géej yi adduna bi jeex tàkk ñu wëndeelu ci adduna bi ko dootuñu gisati lu ñu lekk ñu ñu garab yi ñii dañoo gàtt gàtt te yaatoo yaatu réer réer réer man lañ melo ñi naan ñii seen nopp la ñuy lal sàngu seen seen karaw day buubu ñu ne seen jët bët yi dafa mel ni jant bi lu nekk misaale nañ ko naka noonu la ñu misaalee lu nekk masix dajjal naka noonu ni ñu misaalee mahdi yu ak yan yàlla Isa ci ñu wax yëpp ne daañu ñu ci mbiru ba àddina tukki yaa juuj ak ñu soriwul suñu bu ñu seetee kon bu ñu seetee misaal mépp américains yi ak russe yi def nañ ko américains yi dajal nañu àdduna bépp mboolem bi xeetu yàq def nañ ko ci. fexe nañ ba tek seen loxo ci kaw ñëpp fexe nañ ba fab yibal ba ci aaday ñëpp bu ñu jant bi dana fenké sow bu keroogee dana am daaba jo xamni ci day génne ci suuf jóge sow jëm fenku di wax nit ñi di wax fu baatam gëti ne ci dajjal bu ñëwee day bu ci lay amé nit ku gudd gudd lay doon te ñu ko day melni ko ku te ànd ak kàttan day sawar dana loon ak lu yépp ci ñeen fukki bis ñeen fukki bis yooyu benn bis bi day yàgg ne at beneen bis bi day yàgg ne weer beneen bis bi day yàgg ne ay bis bis yi ci def day mel ne suñu bis yi dana raaxale pàkki àdduna yépp ba mu des màkka ak madina bu ñu day ànd ak ñaari malaaka malaayika nii daf naan ko fen nga bu wootee la muy woote te moo di ma ne moom mooy buru dëgg bu dugg nit ñi moom jaam ñi leen jëme fa ko neex bu ko waxee mel malaay bi ne kan nga ci dess ne wax nga dëgg misaal yooyu ko misaal yépp gis na ne ci ko am xel seetlu ko da nga xam ne lu ñëw la tax waxi mag la joo xam ni la muy wund ngay xam ñaari malaayka yi jubluwul lu dul lënkal xel nit ñi ba ñëpp duñu bokk xam ne day fen ndax bu fi ne wax nga dëgg fi ne da ngay fen do xam ko ci dëggal loolu mooy li ñuy wax yëpp yi ci ëpp ci zahir da nga koy gis mu mel ne wax waxkati dëgg la fekk lépp lu mu wax loo xam ne lii lu jëm ëllëg la dara bu ca dëgg kon lu mu wax te mu jëm tey nga di ca teg sa bët mu mel ne malaayka kon moo ko dëggal ni nga koy dafa mel ne ko wax nga dëgg xam ne daf ko wax te muy kumpa boo xam ne yàllaa ko jagoo te jublu ci dul réeral nit jëm ëllëg dara du ca doon dëgg mooy mel ne nga xam ne moo naan ko fen nga di wax naan dëgg nga ki ki ko naan fen nga lay wax wax nga dëgg ñii ñoo xam ne dañoo indi ay aada yoo xam ne soppi na aada yi nit ñi aada ji nga xam ne moom la lislaam indi woon aada ji xam ne yeneen diine yi jiitu woon lislaam la ca yàquwul la mu indil nit ñi tamu làgg ci ñoom ñu di ko wéyee ba xamatuñu sax suñu leen jóge woon tamuy loo xam ne aayu ñu fexe ba dindi loolu lépp ci génn jamono jox leen yeneen i pas-pas def ci seen xol baax leneen lu bokkul woon ak la baaxoon jox leen aada yu ñaaw yooyu lépp ñu ñu woyofal ko lu matoon a woyofal ñu war maal ko suux nag ci géej goo xam ne du ñu fitti mukk daan dem ba gis ne ni ñu wëlbatee aada yi bokk na ci ne góor jigéen a yem fépp fi góor doon taxaw ñu fa taxawal jigéen doyadal pas-pas yi dañuy façon aada yi ñu aada woon tamit seeni aada yëpp ñu fexe ba nit ñi ruusa meloo woon noonu ruusa feeñ ci biir aada yooyu ku ci nekk bëgg fab aada yi ñoom waa sowwu yooyu aada yi ñu aada woon seen melo nga di ko puukaree woon di ko bàkkoo ngir ne nuroo nga ak ñoom daal ñi leen ba gëm loo leen lu matu yooyu nga xam ne dañ koo wax ne dana ñëw balay saa di taxaw yëpp am na ci yoo xam ne xam-xamu saahir bu àdduna moo ko indi te dana dem ba tax nit ki am bu mënul mënul mu am sikki sàkka ci lenn ci li bi sallallahu alayhi wasallam waxoon wala li ñu ci alxuraan xam ne suñu xam xam yi dem nañu ba ci seenu man-man di sélectionné yiy sax ci kaw suuf doomu aadama di ko jëriñoo maanaam ñu mën a fab ceeb jël dooro maanaam pepp ceeb bi jël pepp leneen loo xam ne dafa bokkul ak ceeb te am rafet rafet yu ceeb amul ñu faxe ba boole leen ji mu sax mu mel na tey dañoo bind ceeb dañoo liggéey ceeb koo xam ne yàlla sàkk ko te ñun ñu jële ci li yàlla sàkk donc dañoo boole yuñ ñu fi fekkoon yàlla may leen xel xelañ nañ koy combiner ba muy indi loolu ñu dem ba di sàkk li ñuy wax benn éprouvé maanaam nit koo xam ne dafa juddu te kenn xamul luy bàyyam kenn xamul luy ndeyam nit ki juddoo ci béréb boo xam ne day mel bu ñu sàkk di ba mag di góor wala muy jigéen fexe ba am weer woo ne moom lañ koy nàmpale te di jigéen di fa teew di ko nàmpal fexe ba ne daañu dem ba am lu ñuy wax yàpp te kenn du roy dara ba yàqu mel ne ñii ñii doj yi koy jëlee ci kaw suuf ci carrière yi xeer yi xam ne da nga dem ba da ngay gas dagg la nga ca soxla bàyyi fa la ca def bu ëllëgee nga ñëw fekk mu màggaat ba toll na tolloo nga leen da ngay nekk ku gumba doo gis dara nga ne suñu borom lu tax nga fang ma ma gumba te dama doon gis bi ma nekkee ci àdduna mu ne ko waaw dama laa woon sama qualité yépp nga gumba sa xol ba waaru woo ci loolu moo tax ni nga fàttee nag sama kaw def yi démb laa la fàttee tey alquran nee na wa ka'ayyin min aayatin fi samaawaati wal ardi yamurruuna alayhaa wa ay kawtéef ay kéemaan yàlla ci asamaan sax ak ci kaw suuf ngeen di ko romb rek te dëgg ko du ngeen ci jéem a waaru du ngeen ci seetantal dara wa ka'ayyin min aayatin fi samaawaati wal ardi yamurruuna alayhaa wa hum waaw waxuma sax xol boobu waaye xel ci boppam dafay jaam koo xam ne dana dëgg dana jub moom xel ndax xel dana defar waaye lu bari moo ko yàq ndax xel moo tey doomu aadama xam yàlla ndax xel ci boppam dafa bëgg nekk njiit loo xam ne lu mu wax kenn lu ko dindi te kenn amul baat ci wetam li nga seet ba sa xel may la ko ngay gëm xol nag ndab la moom loo xam ne day taatal lu ca taa te dugg ca loolaay jëriñ bu dee lu jub bu dee lu dëng loolaay lore xel ci boppam nag dafa dafa xamadi maanaam daal dafa weesu gërëm ndax dafa nekk jabbaar jabbaar boo xam ne lu ne la bëgg a xam lu ne la bëgg a féete kaw mooy àtte moo naan la lii nii la te du bëgg ay wax bu ca teg benn baat wala bu ca teg dara wala bu ko weddi loola tax doomu aadama xamul boromam li tax ñi amul xel xam seen borom muy jur gi muy garab yi muy xeer yi muy ngelaw yi léppay sàbbaal suñu borom tabaraka taala wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu yooyu yëpp xam seen borom ndax amul xel nit nag xelam naan ko déedéet da ngaa juddu yàlla ne dama la sàkk xel na la déedéet da ngaa juddu diw sàngam moo la juddu yàlla ne la maa yor saroon damay lekk dama feebaru moo may dund lépp lu la alquran wax wala yonent sallallahu alayhi wax ko xele bi am nu mu ko bëgg firee wala nu mu ko man a saxale wala nu mu ko bëgg a yeddee kon moo koy sori borom te suñu borom néew na lu mu indee kaawtee fa mu ne fànn wuuteeg aada ji mu doxalee doomu aadama ci kaw suuf ba lu ñëw rek am na lu mu koy yiire am na kiiraay yoo xam ne mooy tax ñi sukkandikoo xel du ñu nangu kéemaan ga ñi nga xam ne leerug yàlla ci seen xol moo ëpp doole xel mi ñoo koy nangu ndax lépp lu ñëw rek am na nañu ko xel yàlla daf koy indee kiiraay loo xam ne daf koy yiire kiiraay loo xam ne ñi yeyoo dëggal ko rek koy dëggal ñi ko yeyoogul dañuy gis leneen ci diggante bi moom gis ngeen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu jógee Màkka te xaaru sawr mu dugg ci biir xuntuma fi saasi sujjee rek maanaam benn at bi garab boobu gàtt daal di sax ci mooy bu lëndëm loolu lu mu doon lu gaaw gis bu ne ngay romb ko jar ko def lëndëm ci kaw garab gis bu ne nga ko tax mu tàgg nen waaye waaye waaye bu leen rek gis bu ne balax yi dañuy tàgg di nen loolu kay fu ne nga koy gis bu di ñu daje yoo xam ne amu ci lenn lu musul am ci kaw suuf wala nit ñi xamul te nag loolu mooy kiiraay li nga xam ne moom la xel di doxe diggante nit ki ak nuurullahi ko defee nit ñi def ñaari xaaj ñi gëm kàttanu yàlla dal di gëm ne suñu borom dafa garab gi digal jargoñ gi may ko kàttan mu daal di lënd ba mu nag digal sant petax mi ci bu soñu la bañ mu daal di ñëw daal di tàgg daal di neen traat ngir nëbb yonentam bi alayhi salaatu ki ci des moom ñu daan xew moom naka jekk fu nekk rek ah loolu lay gis loolu la ko bët woon loolu la ko xelam nay waaw loolu wow xol xel ndax ni ma waxee ne suñu borom dafa am aada bu mu jëflante min te itam kawtif bu mu am na malaanu tabiya mu koy yiir yonent bi sallallahu alayhi ñu dee xare ji mar mu métti lool lool xam ne saaba yi jaaxle nañu ñu ne nan wax yonent bi sallallahu bu ñaan boromam bu xetli lu ñu am ndox ndax fi mu bu dul loolu daañu àll yonent bi dal di ñaan wenn niir dal di ñëw tiim leen ci sottiku seen kaw ba ñu féex taatan naan ba man ni wut ca yóbbal ah am ci saxaaba yi ñoo xam ne dañu wax ñi ñu daan wax te munaafiqoon na naafiq yi fa nekkoon te dugg ñu ah waaw yéen ñu wax naa leen di wax ak yéen tamit ah saxaabatul marra nii bu doon romb rek la. ak ah, niiru romb rek la waaw ah xel kay mën na ko firee nag niiru romb rek waaye nag lan mooy niiru woowu. ci jamono bobu buñ ko gëné aajo wa nit bañu wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñaana mu ñaan ni mu dal di romb ci sasi lolay ki man nga lool moy ki man gi waye mom jifi ñu ko bis ben way bo xamne fekkon na xare badar ñew makka di nakale xare bi ñim demé nit né julit ñi rek deug deug ñu man lu mag lañ leen mel nu màgg màgg lañ leen dimbali ndax ñoom daal def nañu na topp nun muy junni ñuy ñetti téeméer ñu def lu na leen te man maa ngi jàngal ci mel ne calmeer biir ay gawar yoo xam ne mbubb yu weex lañu war lañu sol war ay fas yu xaw a taal seen kàttan la du kàttanu doomu aadama boo xee ak bu rafet daal di ne ñooñu malaayika yi ah Abu Lahab dal di mer naqar mu am ci ni ñu leen bañee ni ko kii nettalee kiimaan boobu ki ko gis te du jullit nettali ko beneen jullit boo xam ne ku mu moom la nekk ci wetam dal di malaayika yi mënatu ko mu mu dal di jàpp song ko daanaka ci suuf doon ko doon bon a bon a bon a bon soo xel na ba amatul mu wax xol bi fa ci naqar li am. ci kéemaan nga xam ne mënatu caa teg lenn te bañ gi ñu bañoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam bañ diine ji mu indi yàlla taxawale koo xam ne kii nanguwul diine ji mu ngi nett li kéemaan boobu mënatu la fayoo xel mu fayoo xol ak kattan ba mu ko defee soxna Seydina Abbas ibn Abdul Muttalib mi nga xam ne moo moomoon kooku ba wax loolu te ñu dóor ko ni ko yow de yaa ñàkk jom ne bëgg yi boromam nekk fi nga di ko dóor dal di fab benn xer dóor ko ci kanam gi ba deret di sotti arab yi nag gàcce bu réew la ñu def di dóor jigéen amatu lu mu def mu dal di ñu këram nëbbu waaye am na ñi ko gëm daañu ko gëm ko gëmul itam daañu am ñu laaj ndax ca déwén sa xare ko yëf yi dañoo dal di gàññi ci nit ñi def leen lu méttee méttee méttee ko def ba mu ko defee ñu gëm loolu itam ci kiiraay loolu daal di waaw gannaaw ñoom dañoo amoon sañ-sañu ak dañoo ànd ak yàlla ba yàlla di yebal ay malaaka malaaka yooyu di leen dimbali teewal Uhud ba ñu leen ni ngeen def rey Hamza mi nga xam ne moom la ci yonante bi gënoon di ko sàqami xóof seen nopp yi ak ko ay jara ak teqal ma ak i ak i caq lu tax yàlla wënduwul ko lu tax malaaka yooyu fu ñu ne woon ba tey mu ñëwaan rek kéem ak gëm bi ñu fi jóg ci nekk am na lu koy dimbali coobareel yàlla gépp kéemaan bi mu indi sàng na fa malaan moo xam ne mooy tax ñi gëmul it am lu ñu wax ba faaw rek waaye wax yooyu ñuy wax du jeexital dara ci xol ñi gëm loolu ñi nga xam ne dañu wëlbatiku walis jëm ci yàlla di ko fàttali ko di ko tudd def ko ci seen xol ñu wan ko gannaaw sàkk yeneen yu ñu feesale seen xol ci bëgg ak yëngu bu ñoom la ñu fayee loolu la ñu téyee noonu ba duñ jàll moo tax ñu ne li ann man alima cheikhan mursila fa cheikhuhu cheytaanu xaysu qasada képp ku amul ku lay jiite di la gindi di la tere di la dëggal di la wan yoon xam ne waxtu woo nekk ni saaba yi daan def xam na naaw doomu aadama doomu la rek te da am ay soxla di ko doxi di liggéey di dem ak dikk faww rek mbiri adduna léeg-léeg fëkk sa xol tuuti waaye nga am foo xam ne boo fa dellusee rek ñu delloo si la ba lépp lu ci seytaane defoon wala lu ci adduna defoon mu yegg ko mën set wet a nekk mun la ñàkk mukk mukk mukk doon naa ko wax démb rek nit ki am kilifa wala mu am cëslaay ni mu teg ki ko amul mel ne garab gi sax ci àll bi rek nga xam ne bu jur gi ñëwee xoofu ko lekk njaa àll ci dëgg tëdd ngelaw li ko dëngal wala ñu di ko reewañ ci daay gi di ko lakk ak garab gi nga xam ne dañ koo ji di ko suuxat làkk wërale ko dara du ko laal ñu di ko garder di ko aaye ba mu màgg muy gën a jub gën a sëq gën a nangu gën a mag ñaar yooyu noonu la wutee lu moo tax nit nosam du jiriku mukk benn waaye yàlla tey di ko wommat wala seytaane ñu jël nos ba di ko wommat ku ci nekk xam nañu fëkk ko jëmee mooy moo tax cheikh Ahmadu Bamba ne radiyallahu anhu bi annama adima cheikhan mursida fa cheikhuhu cheytaan fa suqa sadat wala fi moom bi ñu ne bu ku demoon ci àllarba Moussa dem ci dibéeri Firawna yëpp ah, liggéey la woon boo xam ne yàgg nañ ko liggéey ci ay xarnu yi mu dem ba ci genn jamono ay yàqkat dindi ko moom set wecc sànni fële ñu dem ba xaleel rus ñu di ko gëmt wala mu am bëgg-bëgg boppam bëgg koo doxal nit am sañ-sañu ni ko maali yi duma nii mu bàyyi ko ci nekk di puukare woo maamam sama bopp wala ñeme naa wala lu ma neex def wala lu ma neex wax ñu def ko muy tiitar wala muy fayda wala muy fulla mu yàqu-yàqu bi ñu jëmbat suuxat ko bu ba sax yàqu-yàqu bi yàq ba faw te seet ñu seet gis ñu lan ko war a dindi ci àdduna bépp ndax acheytaan ah, stawala lahum wa amla lahum seytaane daf leen di wan yàqu-yàqu yi waneel bu rafet ba mu rafet fi ñoom ñu ñoo rek am fayda nit ñi doxale mooy doxaliinu ku mat ku ko manqué wala ku jëfe leneen ku tardé nga ñu am seeni baat yoo xam ne moom lañuy ñuy gàcceele ñu jaar ci yoonu jub ngir di leen complexé ba ñu wacc njub googu fekk si leen mel ne ñoom muy dangaa tardé muy évolué woo muy amuloo bopp loolu démocratie démocrate la muy nitu àll nga ay baat yoo xam ne amul mëdd loolu amul lu dem ba weddiloo nit ñi kéemaanu yàlla ci kaw ñu tàmbalee woon di wax ci xol yu wow yi ba àgg ci xol yu dee dootuñu nangu kéemaanu yàlla lu ñëw ñu firee ko neneen nii ñu ma waxee woon nga dégg waa xam ne nee na julit la gëm na yàlla gëm na alquran gëm na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag gëmul li ñu tuddee wàll moom gëm ko gëmul itam nit mën a gën morom ndax nit nit rek la gëmul itam benn sañ-sañ bu yàlla jox doomu aadama wala li ñuy tuddee karaama benn mën ko ba la mu yaakaar bu ko waxee ci weddi loolu kenn du ci mën a teg baat mu ne dekkal ku dee moom kenn mënu ko dudul yàlla waaw kenn mënu ko dudul yàlla moom moom dëgg la moom lu mu ah, jooy ko neexal nit it kenn mënu ko dudul yàlla yàlla rek mën lépp di ko xasee waxee noonu rek moom wax nga dëgg waaye nag boo gëmee alxuraan de da nga gis ne alxuraan wax na ne Isa daana dekkal ñu dee te it ulama yi daje nañ ci ne lépp gépp mu'jiza maanaam kawteef boo xam ne yonent def na ko wala mën na koo def ci karaama boo gëmul ñu wax loolu itam nag li may xamal moo di ne yàlla dafa sàkk xol ñuy gëm ak ñu gëm yow gëm nga daal kenn mënu la dekkal bu dee ma ne misaal léegi nan ma jox la misaal boo àndoon nit ngeen dem ba ca àll ngeen daje nit mu dee mu wóor la dee nag kii dekkal ko saa si ba mu dekkee nga teg ci say bët da ko gëm wala doo ko gëm mu ne loolu daal kon nit nga ko gëm waaw kon nag yow da nga dul gëm rek waaye xanaa doo gëm gannaaw weddi nga say bët kon doo mën a gëmati leneen mu ne waaw waaw bu ko defee ma gis ko daal kon moom danaa ko gëm mu ne waaw boo ko gëmee nag yow ko gis itam boo ko fekkul ba la ko waxee ñii dañ koy gëm ñii dañ ko gëm ñii ne amul rek loolu la demee waaw waaxam bi di def ci xoli nit ki ba waane yi wutu yi ñu dugg ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne min naas man yamuutu nisfuhu wa laa yantaji nisfuhu al-aaxar nit dana dem ba genn wàllam dee nga ci des dund waaye du tax mu jàjj mukk dana noor ci àdduna àdduna man ko ba dara du ko mën a dellusi ne ku dem ba sa genn wàll dee te taxul genn wàll nga ci des jàjj wala mu dellu gannaaw wala mu dellu ليتني لم أنتحي فلانا خليلا لقد ضلني عن الذكر بعد إجاني كان شفاني في الخبر أي أكرني أخوانا دود ما خريطه مام بمن يكي أدنا بمدمي بس مجيس خريطه دود لمكو جري لمكو واني مصيبة لمكو بغل مريج فكرت مي من أكرني أخوانا ما بني خريطه دود يا ويلتا ليتني لم أنتحي فلانا خليلا والله لقد ضلني عن الذكر بعد إجاني لا لا مقسم لا مؤمن سانك نما ba gisuma yàlla maanaam gisuma yoonu yàlla gannaaw ba ma dëgg dikkalee loolu alxuraan a ko wax nee na keroog jëmal xiyaam da nga gis ku ko wax ku rëccu xaritoo xaritoo nag te nga xam ne daf koo sànni jëriñu ko jëmewu ko ci yàlla jëmewu ko ci dara lu jëriñ lu dul sànni ko rek bokk ci jaxasoo nit ku sori diine yi muy wàññi yàq aada yi aada yi ñaaw mooy du dara dutu ormal dara ñun ñëpp a mooy démocratie ñëpp a doomu aadama doomu aadama la mu ne de loolu ñu tudde démocratie la ca nuru lu baax mu ngi si islam alxuraan wax waaye nag dafa am fu mu dañ daan wax bu ñu masaan am xew-xew bu xew seen diggante ñu war leen a àtte bu ñu dikkee Madina bu ñu jugee kër yonent bi dañ naan Muhammad génnal waaye attanu génnal attanu diw ak diw def naa danoo nangam la mu defee ñëwal def lu ci war alquran ne inna alladina yunaaduna